maintenant. Mm-hmm. Arabie Saoudite nag damay wax ne bu ma a wax ci Iran moo di lii mu doon wax nii léegi Arabie Saoudite quand même bu fekkee ne accord Abraham am na moo ko patronné bu ci d'accordul woon. Émirats arabes ni du signé Bahreïn ni du mm-hmm. signé. Maroc sax du signé boo sàgganee Maroc moom am na beneen intérêt par rapport ak Sahara xam ngeen lu tax mu signé. Mm-hmm. boo beneen affaire mais Arabie Saoudite pour la première fois a reçu à Riyad une délégation euh, israélienne mm-hmm. loolu kon moo ko mënoon xalaat une délégation de l'État d'Israël reçue en Arabie Saoudite par kii euh, par euh, par la plus haute autorité de l'État mm-hmm. loolu day wane ne Iran moom xam na ne pays arabe yi daan jàppale palestiniens yi kenn taxawatu ci organisation bu mag bi nga xam ne mooy ligue des états arabes bi nga xam ne ñu ngi ko créé 1945 au Caire xam ne dañu ne benn pays boo xam ne membre nga benn pays étranger ñëw laal la agressé la dafa mel ni agressé nga pays yëpp ñëpp dañu war a jox xeex ñoom ñëpp léegi defatuñu ko moo tax Iran ak Turquie mooy ñaari puissance yi nga xam ne dañu génn ci Moyen-Orient Iran nag bëggul ñu jël xeex bi ak yépp def ko digganteem ak Arabie saoudite ndax ñi sunnite lañ ñii ay chiite lañ geeru Yemen boobu xam nga ne ñoom ñaar ñëpp teew nañu fa ku nekk am na ko muy jàppale mhm. Houthi yi ñii euh, gouvernement haadi bi nga xamee ne bile dañ ko exilé Arabie saoudite mhm. Arabie saoudite xam na ne conflit du ma ñàkk waaye li mu bëgg mooy mu déplacer conflit bi. yóbbu ko ci Israël ndax Israël itam nee na Arabie saoudite euh, kii Iran bu ñu ko bàyyee mu am arme nucléaire danger la pour moom pour sécurité boppam États-Unis itam nee na danger la Union européenne nee na danger la te Israël am na arme nucléaire te du danger loolu fu ñu ko mën a deux poids deux mesures yi ma moo tax ñoom ñu wax ne moo tax ñu taxaw taxawaay bi ñu xam ñu am si Hamas d'un côté. Mhm. am Hezbollah. de l'autre côté de l'autre côté. te moom teewul en tant que état même bu amee ñuy wax ne am nay élément mhm. yi nga xam ne ñooy gardien de la révolution ñuy xeex ak Hamas waaye nag mënuma ko confirmer mais loolu am na fu ma ko lii mhm. loolu mooy wane ne. Euh, maanaam administration américaine dafay def analyse boo xamee ne bi lay intérêt donc la ko teg ak intérêt Israël. ndax boo seetloo administration américaine yi fi ma a jaar yépp démocrate yi daal ñoo daan xool solution. ki wax na léegi euh, Fadel li nga xam ne mooy conférence de Madrid aboutir ci li ñu wax euh, accord d'Oslo accord d'Oslo yooyu xam nga lan mu nekkoon conclusion bi. Mhm. en l'an 2000 la naissance de l'État palestinien. palestinien c'était en 93 su ma voilà 92 93. oui. Mhm. et ensuite il y a eu euh, euh, li nga xame ne li lay mooy ñu tudd autorité palestinienne mu taxaw en attendant. Mhm. autorité palestinienne état la boo boobu ne bi man na participer waaye nag amul reconnaissance au niveau international man mm-hmm. nañ ko mu ngi ñëw loni mais mu ngi ñëw l'ONU en tant que membre observateur mais pas en tant qu'état te pourtant membre plein la ci Ligue des États arabes membre plein la ci l'UNESCO ci OMS ci maanaam organisation yi nga xam ne banqaas lañu mm-hmm. ci l'ONU foofu membre plein la waaye nag assemblée général des Nations Unies nekkul looloo tax Iran ci boppam xam na ne bo bëggul bàyyi Turquie mu jël place bi ndax yaa ngi fàttaliku turki ba ñu demee di aider palestiniens yi en 2007 Israël dafa bombardé. Mm-hmm. oto euh, bateau ya nga xamee ne yi la ñoo ñëwoon di indi lekk. comme ni Israël bañe tey maanaam euh, li nga xam ne yëpp dafa nekk di dund a jóge Égypte ay ONG bëgg ko dugal Rafa Israël ne du dugg léegi moo tax. moom dafay déplacer conflit bi bëggul mu nekk ci territoire am conflit buy am diggante États-Unis ak euh, Iran mm. si Israël ay jóge wala diggante Israël Hamas wala diggante Israël euh, ak euh, li ñuy wax Hezbollah mm-hmm. Mm-hmm. loolu nag boo si gàttal boo ko seetee mooy communauté internationale bi quand am na loo xam ne di akki la woon mënoon na si appuyé wu mooy accord yooyu ñu wax léegi Oslo yooyu ak li nga xam ne Nations Unies ak grande puissance yëpp dañ ci bokkoon ñu daan ko tuddee la feuille de route feuille de route boobu ONU France Angleterre euh, euh, Russie ñoom ñëpp dañ ci bokkoon ñu ne lii kat mooy jàmm bi mën a am mooy deux états yooyu ngay wax maanaam ñu ne état moom mooy solution bi mais mhm. xam nga Hamas depuis lu ñuy wax intifada ba mu xewee 1989 ak deuxième intifada ba nga xam ne Sharon moom dem Sharon dem na ci euh, esplanade de mosquées te nga xam ne place sacre la loolu moo indi temps bu jihaad moo amoon bu njëkk bi jihaad la woon du woon du woon euh, Hamas Hamas si deuxième bi la juddu mooy 2002 2003 bi boobu la Hamas taxawee. te ñoo ko créé te léegi li am mooy OLP. moo lay pour la négociation. Ah, waxtaan pour am jàmm pour indi état mais Hamas nee na li ñu jël par force. da nga nangu waat wañ loxo jàmm bu jëlaat jëlaat li nga moom. ni mu ko bëggee woon. voilà mhm. loolu nag mooy seen différence te itam ni ñu gisee Hamas tey état terroriste te loolu résistance la. justement parce que parce que li ñu koy jox comme tour bokkul ak les pays arabes li ñuy jox comme tour Hamas parce que la communauté internationale la France les États-Unis boo dee dégg jàpp nañu ne ay la lañu ne lañ leen. voilà mais même OLP dañ jàppoon na ay terroristes lañ. jamono ji ñu nekkee ci seen. OLP avant 1975. dañu waxoon say terroriste lañ leen mas léegi ba ñu nangoo Yasser Arafat mu dem l'ONU tribunal euh, euh, tribune l'ONU wax mm-hmm. boobu nag li ko gënoon euh, may chance moo di africain yépp dañu dogoon seen relation ak Israël après guerre 73 donc l'OUA ci boppam ne ñi ñëpp a dog seen relation groupe arabe ak groupe africain ñoom ñëpp ñu ànd looloo tax Yasser Arafat mënoon taxaw. Euh, tribune des des Nations Unies loolu moo tax aussi ñu assimilé woon sionisme ak apartheid. c'est ça. Nelson Mandela. voilà Nelson Mandela ñu ne arabe bi racisme bi am ci Israël à l'égard des arabes. wala sionisme bi nga xam ne moom lay def ci palestiniens yi ak ni mu leen di faagaagal di leen néewal doole ak bi jël seen suuf loolu la apartheid tubaab yi nga xam ne ñoo nekk Afrique du di def ci nit ñu ñuul yi loolu moo tax et eh, révolution bi nga xam ne mooy révolution 1979 dafa daggal li nga xam ne moo amoon diggante Amérique ak Shah d'Iran ci Iran ndax Iran moo nekkoon pays bi gën a am doole Moyen-Orient yépp am arme am pétrole am gaz am lépp. Mm-hmm. mais bi Iran ñëwee bi l'imam Khomeini ñëwee mu dagg relation yooyu. jàpp ay ay américain mhm. looloo indi animosité bi nekk seen diggante ba tey yii du sax affaire Israël rek. Mhm. c'est plus profond que ça. alors dinañu ñëwaat bien sûr. Euh, euh, imam tey euh, gis nañu que le lendemain wala fan yi nga xam ne moo tegu ci cong bi Sénégal position bi nga xam ne jël na ko ci mooy dafa condamné attaques yi nga xam ne jàpp na ne Hamas daf ko teg ci kaw Israël yow loolu naka ngeen ko jàngatee. waaw loolu. ni ñu ko te xam nga Sénégal moom man damay wax nii eh, rafetlu wu ñu ñu ñu ñu condamné Hamas ngir ñaari mbir bu jëkk bi mooy Sénégal dañ ko mas di jox cër ci problème mu Palestine ci Nations Unies mu jiite ko bu dul benn du ñaare loolu war na mën a tax tëddee njaaxaay naay gi man gisuma ni lu war a mën a nekk la ñaareel bi ci boppam dafa jiite réew moo xamante ni ay jullit lañu seen mbokku jullit fu ñu jëm di am problème dañu leen war a jàppale moo tax euh, euh, position Sénégal vraiment man gisuma ni nii la waroon demee. Mhm. waaw dama dama gis ni Sénégal dañu waroon taxaw ci ci ci ci peggu Palestine jàppale leen ngeen ñaari causes yi nga xamante ni moom laa wax. loolu moo tax sax problème bii amee Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal dañu def benn risalatu ihtijaaj lettre de protestation. gis nañu waaw ngeen bind ko. waaw euh, jëmee ko ci Nations Unies ak ak ak ak Ousseyni di naqarlu lii nga xamante ni moo dal ci kaw Hamas dal ci kaw Palestine yi tey. ci ay jëf yoo xamante